ñu ngi lay ñaan bala ngaa seetaan sunu vidéo nga daal di abonné bës cloche de notification bi pour vidéo bu ñu dugg rek ngeen mën cee jot seen d'information bi leen di jox xibaar yu wér te wóor. salaamaaleykum Sénégal dama bëgg ngeen déglu ma bu baax a baax waa ji nii ma affiché dafa commencé ci jël ay vidéo jàmbur di ko tas yàq ay doomu jàmbur yàq seen àdduna yàq seen live sénégalais yi di ko dooleel mu jugee ci loolu. Eh, di def ay vidéo di saaga nit ku nekk képp ku wax ak loo mënti wax mu génn daggal la saaga ndey sénégalais yi di ko dooleel jóge na ci étape yooyu léegi ñu ngi ci beneen étape mooy dugg ci famille jàmbur yi eh, di ko tas famille yoo xamante ni eh, famille yëpp am problème muy jël ay audio yaay ak ay audio doom di ko tas ba tey sénégalais yi di ko dooleel dama dégg nag ci benn vidéo mu wax wax yoo xamante ni man dama tiit mu ni Sénégal du ma mës a xew yi heure bu ma bëggee yëngal réew mi dama koy yëngal waaw wax na dëgg nag ndaxte wax fa dëgg yàlla am na ci ay nit ñoo xamante ni dañoo manqué lool moom rek la ñuy déglu te moom rek la ñuy toog waaye nag bi ma déggee wax jooju dafa am lu sama xel dem mooy moom xanaa xamul ni bis dina ñëw moom ci boppam dina bëgg yëngu mu tëkku waaw ndax loolu tamit def naa nit ku nekk war ko bàyyi xel maa bëgg wax ci moom nag ndaxte boo waxee ci moom ñu ne da ngay wut buzz wala da ngay wut succès defe naa ni euh, man personnellement sama jëmm ji euh, joomu naa di wut buzz ci koo xamante ni ah wax fa dëgg yàlla nag defe naa ni euh, li ma am amu ko li ma mën mënu ko fi ma dem demu ko te loolu defe naa ni moom lu am la lu ma mën a confirmer daal te fu ma dem demu fa euh, li ma sunu borom defal euh, muy li ci li ci li nga xamante ne mooy li ma ci gën a neex mooy am ñaanu waajur euh, defe naa ni moom amu ko ndax ku am ñaanu ñaari waajur am na ci jëf yoo xamante ni doo ko jëf am na ay melokaan yoo xamante ni doo ko mel beneen bi moom mooy fu bëgg dem ma dem fa kon man jomm naa di wut succès wala may wut buzz ci nit koo xamante ni dëgg yàlla kenn nawloo ko te kenn bëggul jur doom bi mel ni moom li mu def lépp nag du loo xamante ni dañ ciy jaaraam ndax ku ne teg nga ci te ba léegi mi ngi gën di yokk nee na moom moo ay flow moom moo ay vues euh, ci réseaux sociaux yi d' accord wax nga dëgg de wallaay wax nga dëgg waaye nag jàppal ni un jour viendra bis du ñàkk ni ko war di waxee euh, donc bis du ñàkk bu Sénégal nag yéen laay waxal euh, ndaxte wax fa dëgg yàlla gis nañu ay nit ñoom tamit dañoo taxawoon di saaga état bi di wax du n'importe quoi ñu dem jëli bi fu gën a sori fi waa ji léegi jàppale ni kii ñu ngi yàq ay yaayu jàmbur jàppale ni kii ñu ngi yàq ay doomu jàmbur jàpp jàppale ni kii mi ngi tas ay famille jàmbur ci loo xamante ni Sénégal kenn xamu ko woon kon donc war ngeen mën a jël seen ay responsabilité ba ci dëkk bi nga xamante ni fa la nekk yéen ñi nga xamante ni yéen a fa nekk ah defe naa ni de bu fekkoon ni li ñuy yàq considéré ngeen leen comme seen ay sœur wala seen ay yaay wala seen ay mag wala seen ay doom ah defe naa doo leen ko bàyyi muy dox waaye nag comme Sénégal moom comme on dit am na ci jëf yu ñaaw yomte ku ko jëf star <laughs> li may wax tout le temps xëy na sax peut-être bis dina ñëw ah ñu tuddee ko réew bu wala xew bu mag tu vois ñu koy rendre hommage Wally Seck bi balaa blâmer nag ndax moom <laughs> Sénégal xanaa xamoo leen Wally Seck Wally Seck bu dof ñu woon sax ni ko dama laa bëgg mënu ko maa la raw ko nañ sinap mu ànd sinap ak moom Wally du gàcceel nit te du tuutal nit te du toroxal doomu aadama waaye defe naa ni kii moom ah non non non non bëggul kenn ñi muy wax ni daf leen bëgg wallahi lazim bëgg ci kenn ndax boo leen defee jàngat def seetlu ñooñu ñëpp dugg na ci seen biir dugg ci seen biir famille tas ko wax fa du n'importe quoi artistes yi nga xamante ne nag ak jeune yi nga xamante ne ñu ngi jéem a ko ak moom <laughs> ngir nee nañ dañoo bëgg bës anoo ah ñàkk ñaan waajur moom mënul romb loolu koo xamante ni kenn nawloowu ko moom ni mu ni ko ñëpp xamee ni mu siiwee du kenn ku bëgg a siiwee noonu yaw ngay dem retourné dem ci moom naan da ngay jokkoo ak moom ay na wax ci yow na kaa ci yow yal nañu yàlla musal ci nit ki ku muy kaa yal nañu yàlla musal ci kii ku wax ci ci yow non Sénégal jeunesse bi faaw ñu commencé bopp encore une fois li tout le temps demee tey ba Sénégal ñu dem ci armée yi di fulli ay bopp nit ah non ñun perte nañu lépp te di ko waral nag genre yi ñoom ñoo tax parce que ñu ñooy tekki ñu ñëwee réussir day def ay live sax di may xaalis ah waa baax na